góor ñi muy jigéen ñi yéen daayira yu jigéen yi tamit ngeen gën a góorgóorlu bu baax ndax gis nañ ne fépp fu ñu dem gis nañ jigéen ñi da ngeen am seen pasteef di ànd ak góor ñi ci liggéey bi ba noppi liggéey ba nga xam ne wàllu jigéen rek yéen rek yéen koy defal seen loolu yépp ngeen sàmm it seen njaboot gi sàmm xale yi ba fexe ñuy ñuy am ñuy jàng fii bu ñu fi nekkee na ngeen fexe ba daara yi nga xam ne mooy kër yi ndax kër yi sëñ Tuubaa wax naa leen ne kër yi ñoom doy ko dara sëñ Saliou ma la doyewul kër dara sëñ Mourtala itam bi mu leen di wutloo fii ay kër këru lislaam la waxoon këru lislaam mooy foo xam ne lislaam moo ko moom man ma jàpp ne kon li am solo mooy lislaam li mu pertoon lépp ci yeneen dëkk yi ci àdduna ci foo xam ne duggoon na fa génnaat fa te la ko fa dugaloon génn ko fa mooy dëgg ko fa dugaloon ay caaxaan génn ko fa kon loolu nun nu fexe ba barab yi nga xam ne dañu ko am muy barab bi jàngukaay di barab bi lislaam ñu def ko barab boo xam ne lépp lay tax nag mu sax mooy ñu fexe ba sunu doom yi ak njaboot gi ñu yar leen yar boo xam ne ëllëg ak si bu nu fi nekkul ñoom ñu mën a taxaw sunu taxawaay wala taxawaay bu ko gën a dëgër kon loolu na ngeen gën ñu ngi leen ci gën a soññ bu baax ngeen a gën a nekk benn daayira yi nekk benn nit ñi it nekk benn ñun suñu fi dee ñëw ñëw nu fi ngir di sonle dañoo bëgg dañ fay ñëw ngir sonn loolu moo tax suñu sañoo nit benn coono boo xam ne dañ ni ko fi tege du am wante yéen it ngeen fexe ba li ngeen di nekk lépp mu ngeen di ko di ci diisoo ndax euh, bu fekkente ne loolu amul rek mën naa am leneen dugg ci loo xam ne xëy na du jóge ci yéen te loolu la koy waral rek mooy ñàkk di gisante ñàkk ak leneen dugg ci seen biir loo xam ne bokkul ci euh, loolu mooy am moo am solo kon nag na ngeen gën a pas ànd bu baax te gën a góorgóorlu te it ngeen jaamu yàlla fu ngeen mën a nekk ndax it Cheikh Amadou li mu am lépp ak li mu def lépp ci jàmm yàlla la ko amee. mosut noppalu guddi mosut noppalu bëccëg fenn fu ko tubaab yi mas a fekk ak lenn luñ ko mas a lenn luñ ko mas a lu nekk saa bu ñu ci bëggee doxa diggam ak jàmm yàlla mu daal di ñu jikkoom ñu daal di koy gis fa saasa mën mësu ko booleeg lenn damay wax ne lu ne man masoon mën na koo bàyyi ñu di ko ko sonal waaye diggam ak yàlla moom saa boo fa masaa dox rek nga gis ko jëm nga daal di koy gis ci boppam bu dee dooleem lu mu néew néew doole dana la songal boppam wala mu jéem laa won boppam fa saasa kon nag loolu mooy bakkanam rek la ciy jaayee loolu la bëgg a def kon nag mu itam fu ñu nekk nañ fexe ba loolu ñu di ci jàpp bu baax eh, te ñu xam ne diine du loo xam ne nit ki day pas-pas la waaye du nit ki loo xam ne lu mu jàpp ay calcul la ay calcul moo di su ma ci defee lii su ma defaalee am la le déedéet du loolu dangay nekk ci mbir ak sa pas-pas ba loo la ci fekk rek mu fekk la ca soo ko defee rek da nga am fa nga àgg nga jëm waaye dafa bokkut ak àdduna àdduna saa boo ciy dugg da ngaa war a xool na ciy duggee. bu ma ci duggee fii bu ma jaaree fi falaay falaay la danaa àgg safale loolu mooy doxinu àdduna waaye doxinu pas-pasu diine dafa laaju loolu li mu laaj mooy na nga ci dugg ak sa pas-pas ak sa xol bu ko defee lu fa cee àgg nga àgg fa waaye soo xasee def ba nga xam ne calcul nga ci rek bu boobaa dana am jafe-jafe loolu mooy indi léeg-léeg jafe-jafe ci lu bare ndax dañuy wax ne yoonu sëñ Tuubaa yi dafa nekk yoon bu doy waar ndax li mu liggéey yàlla dafa bari da nga gis koo xam ne dana ja dana borom li tax mu jafe ci bu ñaare ci nekk muy ki nga xam ne dafa xam ak ki xamul ki xam bu fekkee xam-xamu àdduna la xam-xamu àdduna boo ci dee li boo ci boo ko amee wala boo ci dee doxe xam-xam nit bu ko bu ci dee doxe fokk muy xalaat fokk muy xalaat mooy bu dee dem fokk mu am yoon wu ne fii laay war a jaar wante yoon woowu nga xam ne moom ngay jaar nag li lay liy jafe ak pas-pas bi li koy wóotale ak loolu mooy saa boo demee ba ci biir pas-pas ba nga dugal ci yoon woowu nga xam ne mooy yoonu calcul bi boo boobaa da lay mujj fàtteloo pas-pas ba loolu moo lay indil nga dem ba mujj nga far jël yoonu calcul war ak moo lay indil dem ba egg bëgg a bopp foo xam ne egguloo fa loolu mooy indi jafe ci wàllu àdduna moo tax ñu buñ ko jaxasee lu niroo la nag te bokkul waaye moo tax pas-pas foo ci amee pas-pas bay liggéey na liggéey ngir yàlla te bañ a sa ginnaaw ndax nitu yàlla képp sax saa boo xamee ne da nga damay dem jaamu ji yàlla ndax damaa bëgg doon wàll yi bu boobaa doo dem fen li ngay def mooy da nga jaamu yàlla ngir yàlla moo tax mbirum yàlla dafa nekk lu xóot loo xam ne du lu ñuy lijjanti pas-pas moo ko joxe pas-pas boobu itam nga nekk ci biir ba loola ci fekk rek fekk la ca kon saa boo ci dugalee loo xam ne ay ndax rawatina nag mbirum sëñ Touba ndax dafa liggéey li yàlla ba am ngërëmam moo tax mbiram lu lépp daf ko tëyal boppam daf ko téyel boppam moo di ne saa boo demee ba dugal ca loo xam ne bu la joxee nga nekk ca di ci jëfandikoo saa boo demee ba dugal ca loo xam ne sa yëfi bopp la da ngay gis mu daal di ciy génn saa bu ci génne loola day daal yàqu kon nag nañu gën a ànd te pas pas am am ànd ànd nekk benn liggéey ngir yàlla léegi ci deset mooy ñi ngi ni nga ko waxee léegi ñi ngi li gërëm bu baax waa ndax wax dëgg yàlla sonn na ndax ñun jàppoon nañ ne buñ ñëwee bu la 28 jeexee rek ñu daal di nopp waaye dañoo ànd ak ñun ci liggéey bi xam nañ ne liggéey la ñu def lii liggéey la tey liggéeyal seen réew la ndax fii toll lislaam tollu nga xam ne àdduna bi dëkki tubaab yi fii ñu toll Sénégal am na ci ndam bu baax ndax fu ñu dem ci dëkki tubaab yi ak kuñ ci gis dañuy wax ni ñun lislaam la ñu yore loolu nag yéen ñi nga xam ne yéen a koy wane ba xam àdduna bi ñu xam ne nun mësunoo bokk ci ay caaxaan diine du lu ñuy politique diine du lu ñuy jaay kon bu nu amee suñ responsabilité boobu nga xam ne ñun jàpp nañ ne noo war a feeñal diine yàlla defit yéen ngeen di xam loolu ba lenn lu ci nekk ngeen di ko rafetal loolu itam ñu ngi leen ci gërëm bu baax ndax mënoon ngeen waaye ndax liggéey bi yombul liggéey bi yombul coono bi metti na ngeen def ci seen waaye nag lal yàlla mi nga xam ne moo moom moo tax nu di ko def noo ko bokk bu ëllëg si biir fuñ ci mën a toll it noo génn koy bokk na yàlla leen ci yàlla fay yéen itam ñoo ngi gërëm bu baax bu ngeen demee ngeen gërëmul seen directeur gërëmul ñëpp xëy na loolu sax teel na waaye dañoo gis ak liggéey bi saa fu ñu egg rek mënuñu ko ñàkk wax ndax xam nañ li ngeen di jànkonte ndax gis nañu li ñu jànkonteel te xam ne loolu yëpp yéen kon nag ñu ngi leen di gërëm bu baax kon sëy mi ñu ngi leen di gërëm day xam naa rek ni ma ko waxe woon rek metti lu lool ndax su doon bëccëg wala su doon woon jamono ñu gën a sonn xëy na coono sax di ko wax ñemewuñ ci xóot waaye nag dafa di nit nit rek la mën a doon waaye sul woon loolu day ñun ñemewuñu toog ak yéen suñ toogee ak lépp loo xam ne laaj na ko danañ ko def waaye nag xëy na wax ji ak yépp li mooy ni mu demee rek la ak fi ñu jógee ak liñ liñ nekk woon ci fan yi waaye bu dul woon loolu it ñun danañu danañ waaye suñu xol sedd na ndax fii ngeen nekk ak li ngeen nekk ak li ngeen fi nekkee dafa nekk loo xam ne koo ko fekkee rek xamal ne ko lam man lépp def na ko ci wàll gi mu gi mu gi mu war a mane kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla mu defal leen jàmm defal yàlla defal ànd bi kenn ku ci nekk la nga xam ne moom nga bàyyi sax njaboot yàlla defal la ci jàmm ñoo ngi leen di gërëm di leen sant asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu